o bo jo do ho wo zu ho o yo ko lo mu nu ya karena foofu la ñëmon ñu wara jall ci su u fu bu qu ru su tu su u فو ضو قو رو سو تو سو عن فو ضو قو رو سو تو سو عن فو ضو قو رو سو تو سو عن فو ضو قو ro so do so en fo bo o ro so do